asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal moo dellu si leen siyaare bu baax di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal euh, ñi ngi siyaare Serigne Mountakha Mbacké ña di ko ñaanal mu yàgg fi tàndu ak mboolem njabootu Serigne Touba gi ak mboolem xalifa généraux yi nekk ci biir Sénégal gi yëpp. Fall 94 Walf Sénégal mu ngi jaajëfal bu baax a baax sunu mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi partout dans mondo monde ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi gis commentaire yeeg yëpp rek ak partage yeeg sami yeeg yëpp. ñu ngi gis tamit commentaire yi wax dëgg yàlla audio yooyu vidéo yi yëpp macha allah ñu ngi koy gis ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di wax rek ni maanaam Fall 94 Walf Sénégal moom ñëpp rek la fi nekkal rawatina nag sénégalais yi nekk ci diaspora bi waaw xam naa ni kon euh, dañuy euh, ànd ak suñu partenaire bi di assan Mbaye saa su nekk rek yéen ñi nga xam ne da ngeen am ay bagage fële ca tubaa marok bëgg mu ñëw Sénégal euh, ku jokkoo assan Assane Mbaye incha allahu rabbi sa bagage yooyu da nga ci jot nu mu gën a gaawee ku am tamit ay bagages yo xam dafa jóge fi di dem fële ca Maroc bu ngeen jokkee ak Assane Mbaye incha allahu rabbi dangeen ngeen ci jot ca Maroc nu mu gën a gaawee Assane Mbaye nag numéro téléphone bi dinañ ko jàllale fii incha allahu rabbi bu ko defee rek ku ko soxla nga contacter ko waaw di wax ne Assane Mbaye nag ndaw la ndaw la loo xam ne sénégalais la nekk fële ca Maroc marocain yi ràññee ko lool foofa ca dëkk ba kon nag yàlla na jàmmam yàgg waaw tey nag ñu ñëw ak ci lii nga xam ne nii fii la xewee fii ci euh, Touba. yaakaar naa ne xale la euh, ñu jàpp ko ci li nga xam ne nii euh, mooy euh, borom ñaari tur yi yaakaar naa ne nag ñu jàpp ko ci pièce boo xam ne dañ ko koo tegal fii ci dëkk bi muy jàpp bu leer naññi nga xam ne maanaam fi mu toll nii ku dugg ci réseaux yi sax da ko gis muy jàpp bu leer naññ boo xam ne ni kenn tuumaalu kenn dafa moom moo ko doon defee ñu jàpp ko kuréel gi ko jàpp nag di kuréel goo xam ne wax dëgg yàlla kuréel gu sawar Eh, du kuréel goo xam ne ni fii la nekk ci Touba yaakaar naa di saytu Touba bu baax a baax a baax fu ne mu fay dugg ci Touba di eh, raxas dëkk bi di eh, liggéey liggéey bu am solo boo xam ànd kook ay ndaw ak i mag ñoo xam ne nii ak i góor ak i jigéen mu nekk mu nekk liggéey boo xam liggéey bu am solo la kon nañ leen jàppale te doole leen bu baax a baax muy kuréelu Xidamul Xaddim Xidamul Xaddim nag wax dëgg yàlla jot na sëkk ñu gën leen a jàppale bu baax gën leen a taxaw bu baax ci wàllu moyen yëpp ndax dañoo toll ci jamono boo xam ne ni borom ñaari tur yi euh, góor jigéen yi dañoo përiwul sax pour génn Sénégal ndax ñoom si seen jëm bopp xam naa ne bu ñu amee lu ñu bëgg dëgg kuréel yi fi taxaw di euh, di di leen yàqal fii ci Sénégal ñoom fi mu toll nii ñoom lañ bëgg a taxaw jàmbaarloog ñoom mu mel ne ñun maanaam sunum réew ñoom dañ fee ñëw rek maanaam yor seen arme muy xaalis ay lobby ay kuréeli saytaane yoo xam ne nii jaay nañ seen àllaaxira jënd ko àdduna ñu yor seen xaalis jàpp ne xaalis boobu mooy seen arme moom la ñuy xeexe ñu yor seen xaalis ay yambar nekk ci seen biir euh, ñu leen di defloo ñuy def mu ñu nekk seen i pion ñu leen di xëpp xaalis ñu dugg ci loolee nga xam bu ëllëgee fu ñu dugg ëllëg ñoom ñoo koy bokk euh, ñoom ñu am loo xam ne nii ñu bàyyi ko fi dem di ànd ak ñoom tey wax dëgg yàlla ñu jël nag ndaw ñi rek bëgg leen a fas yéene jaarale ci loolu ndaw ñi nag nekk ci nga xam ne bala ñuy xam lii nu nekkoon c'est trop kan nañ leen gën a jàppalewaat bu baax a baax man nag dama xamoon euh, yar bi moo matatut man damaa xamun maanaam euh, da ngay yar sa kër mu génn yàqoo ci mbedd mi wala damaa xamoon nit ñi dañoo yaratut waaye boo xoolee fi mu toll nii jeunes yi dañoo bari Sénégal te liggéeyun nag seen yi dañoo bari Sénégal trop te liggéeyun créé wuñ fi benn emploi boo xam ñu ngi ciy liggéey Touba gi waroon nañ fee créer ay emploi yoo xam ni seen yi waroon nañ faa mën a dem di liggéey xam nga dawal sareetu mbaam wala dawal sareetu fas du liggéey wax dëgg yàlla buñ ko waxee te yàlla tax maanaam dañ leen a war a defal ay formation yoo xam ne fii ci Touba dooleel leen ñi nga xam ne ay milliardaires lañ ay bonne volonté lañ ñu jàppale ndaw ñi euh, defalal leen fii loo xam ne dinañ ci mën a liggéey ngir bu ko defee lii nga xam ne dafay raam di ñëw euh, ñu koy jaarale ci ndaw ñi ndaw ñi mën cee mucc lool nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax. ndax fi mu toll nii euh, kuréel yi di kuréeli saytaane di kuréeli di lobi di lobi rawatina nag ñi nga xam ne ay góor jigéen lañ dañuy xool dëkk yi nga xam ne moo gën a sell dëkk yi nga xam fa lañ dàq ak jaamoo yàlla ñu fexe ba euh, dugal fa lii nga xam ne mooy mbirum góor jigéen loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax ñoom duñu tàyyi benn yoon duñu euh, xaddi benn yoon ndax ñoom jàpp na lépp rek alal ci alal lañ ko teg te xamun ni fii ay kuréel yu sawar ñoo fi nekk ay kuréel yoo xam ne ni li sunu maam yi bañoon démb moom la ñuy bañ ba tey wax dëgg yàlla kon yaakaar naa ni nañu gën a taxawaat bu baax a baax gën a jàppalewaat bu baax a baax kuréel yi nga xam dañoo nekk fii ci Touba eh, di saytu dëkk bi ndax ku nekk xam ne fi mu toll nii kuréeli saytaan yi dañoo bari te dañoo tas ci àdduna bi te dañoo dem ci dëkk lislaam yi kan ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax Sénégal nag comme li ma waxoon rek dañ koo teg bët singili ko eh, ba pare xam nañ ni Sénégal dañoo bari ay jeunes dañoo bari ay ndaw ñoo xam ne liggéeyuñ pour ñu def loo leen lii nga xam ne mooy mu góor jigéen dafay yomb ndax ku xëy di xale war a liggéey teral sa yaay teral sa baay te gisoo loo xam ne yaa ngi koy liggéey euh, am na ci ñoo xam dañuy jaay seen ngor dugg ca loola bu ko defee euh, loolu euh, di continue di nekk Sénégal di fi law te duñ xam nuñ koy dindee ndax ñu ngi nii bi ñu yóbbee suñu Euh, bi gars yi dajaloo pour dem fële ci ensemble ñu wooteel ñu lii nga xam ne ni moom lañ bëggoon ñu wootee ko mu deñ Sénégal nungu woon ko ba tey jii gis nga ko voilà nga xam ne ñoom fi mu toll nii ñoom ñi nga xam ne ni ay kuréeli saytaane lañ ay kuréeli góor jigéen lañ fi mu toll dañoo pare pour attaquer ñi nga xam ñoo doon def loolu waaye nañ